par la suite adressé une correspondance au directeur général de la général des élections, la DGE, a bien voulu disposition la liste complète des rejets pour autres motifs, estimés de 36 000. L'étude ces rejets a quand même conduit à des découvertes hallucinantes. C'est le lieu de remercier toute l'équipe de la grande coalition comme ce BOP, même ceux qui sont dans les régions se sont déplacés hier pour une vérification complète d'une partie des 36 000 parce que, comme vous pouvez vous l'imaginer, ou même fastidieux de faire ce travail de vérification portant sur 36 000 rejets pour des motifs aussi fallacieux les uns que les autres. des rejets pour des tailles non conformes, des rejets qui concernent des non-électeurs, mais également des doublons. Le travail de fourmi abattu par l'équipe de la grande coalition Gumsebop a permis donc de démasquer cette fraude extraordinaire. Ce travail de l'administration sénégalaise, j'allais dire une partie, qui a consisté tout simplement à invalider la liste de la grande coalition Gëm Sa C'est le moment de dénoncer cette fraude, ce maquillage à outrance qui ne profite qu'à Macky Sall et à la coalition Benno Bokk Yakaar. Prenez votre mal en patience, chers journalistes, parce qu'aujourd'hui, vous aurez la possibilité de repartir avec de la documentation. Quand nous accusons Macky Sall de fraude, quand nous accusons la direction générale des élections de fraude, ce ne sont pas de 20 mots. Je viens tout de suite de lister les causes de rejet, à savoir des doublons, des tailles non conformes, ainsi que des, non, non, en fait, des électeurs, mais considérés comme des non-conformes électeur. Alors, c'est pourquoi j'ai demandé qu'on nous euh, mette un tout petit peu la documentation, d'abord le fichier de la DGE, un fichier de la DGE. Alors, vous, vous allez comprendre tout simplement. Un fichier de la DGE. Alors, ça, c'est, ça, c'est la, c est, c est, par exemple, ça, c'est un exemple. Get back retourner retourner retourner retourner voilà ok fichier DGE voilà comment ça se présente voilà alors on nous a donné un fichier en PDF de 926 pages chaque page contenant euh, disons 41 descriptions Donc on en a reçu 900, 926 pages, comme ça. Vous avez la, le numéro de l'électeur, nom, prénom, la taille et les références générées par l'application qui a permis de vérifier. Alors, ni les demain. Les deux éléments essentiels de la vérification, c'est le numéro d'électeur et la taille. le nom et le prénom ne sont pas pris en considération, ainsi que le NIN, le numéro d'identification nationale. Quand je vous disais que on a été stupéfait, pourquoi Parce que vous allez comprendre que c'est une machine déclenchée par Macky Sall et l'administration, en particulier le directeur général des élections, M. Tiendela Fall, parce que l'organisation de cette opération lui incombe. Regardez ici. Numéro d'électeur 105 487 315. Regardez, c'est marqué non électeur. Du loolu la. Loolu lañ ci bindu non. la pièce d'identité et dites-moi si c'est un électeur ou pas. ku am bureau de vote am lieu de vote est-ce que mun naa bañ a nekk électeurs. Voilà. Non, on, on, va, on va mettre ça. C'est là. Zoom, zoom sur ça. Tu, tu, as, tu as le document là. Moi, je me projeté. Et puis, je vais vous le document. Parce que, euh, si vous avez des preuves, te boo amee affaire ak ay njublan il faut li ngay def mu leer nañ. Yamuñu ci benn yamuñu ci ñaar yamuñu ci ñett buñu yamone ci benn dong doy nañu arrêté mbir mi nga amaat beneen électeur ñu ne la cent 104 743 744 mu ngi nii ñu ne la rejeté parce que non électeur nga dem fii nga xool nga gis da ngay gis 104 700 nangam sangam 744 kii électeur la bu wér kon xam nga wet bi gis bokk ci et également mën nañ leen ko projetel ngeen gis ko noonu it la ame ci les tailles non conformes gis nga fii dañ lay defal kii numéro électeur ñu ne 893 Dakar la ñu ne taille bi 1 mètre 50 mu ngi noonu effectivement 100 904 893 regardez bien la taille dans le docu sur le document de la DGE la taille c'est là sur le document de la DGE taille bi mu ngi ni 150 nga xool numéro électeur bi. carte d'identité bi numéro électeur bi moo nekk nii ana taay bi nekkul nii du cent cinquante te cent cinquante lañ la bindal fii nga continuer comme ça tu on en a des exemples à n'en plus finir fii ñu ne la cent deux cent dix-sept cinq cent quatre cinq même chose ñu ne la taille non conforme waaye ñoom ñu def ci taille bi 177 nga xool numéro électeur bi 102 217 585 regardez taille bi ñu ci def ñoom 577 regardez la taille de la bon dame 577 astaghfirullah là vous la taille de la bonne dame vous avez 177 et lii liggéey la boo xam ne dañu ko xool rek ci carte d'identité yi ñu fi yor ñu déceler lii muy gàcce yamul foofu parce que boo continuer di nga gis dañ lay wax yenn saay ne la dafa am ay doublon re machine mag di recherche boo dugalee numéro électeur bi da ngay xool fii fu mu am doublon beneen page day wàcc et quand vous regardez effectivement yaa n'y a aucune autre page ça veut dire tout simplement que musul nekk doublon alors ñu am ci lu bari parce que lii yëpp lii yëpp ma yor lii yëpp loolu la te échantillon la ci li nga xam ne ñun moom la ñu yor dañu ne bu dee ne benn rek musiba la waxumalaat nag ñu yor ci lu bari loo xam ne mënees na koo tibb c'est le lieu d'interpeller l'administration en charge des élections et en l'occurrence le ministre de l'Intérieur et le directeur de la DGE. Vous avez l'occasion de montrer et de démontrer au Sénégalais que réew mi dong moo leen ñor lii ñu gis fii gàcce la lan lañ ci jublu loolu mooy la grande question non électeur ñu jox la ne la sénégalais yi ay non électeur lañ mais nga xool ci seen pièce d'identité nga gis ne ñii ay électeur lañu am bureau de vote am lieu de vote mais kooku nu mu mën a def ba doon électeur nu mu mën a def ba waa DGE waa direction générale des élections mën ko considérer comme non électeur et loolu ça nous pousse à réfléchir davantage parce que bu fekkee ni nit ki am na pièce d'identité am lieu de vote am bureau de vote am numéro d'électeur ñu dugal ko ci base de données ñu hit base de données bi moom mu considérer ko comme non électeur ça veut dire que am na yeneen fichier tout simplement Et ça remet en cause même l'élection du président Macky Sall en 2019. Ça veut dire qu'il a volé. Ça veut dire tout simplement njuuj njaaj ba mu doon wax ne bana ko moom moo yëy ba ko parce que nag ay xale yu tuut feeñal nañu njublangam ak njuuj njaajam parce que non électeur ci koo xam ne dafa am pièce d'identité délivrée par les service de l'État mu ne nga ñëw dugal ko ci biir logiciel de vérification ñu génneel ñu jox ñu ñun ay documents ne ñu non électeur la anak ah, xaayaan ku dégg séeréer ça veut dire tout simplement am na beneen fichier bu kooku nekk parce que électeur bi bu fekkee ne génnul ci base de données bi ñu doon vérifier ça veut dire que dafa am beneen base de données et ça c'est le c'est le lieu de le dire parce que bari na ñoo xam ne yàgg nañuy wax ne am na yeneen fichier électoral kon lii deful lu dul firndeel ne am na yeneen fichier électoral yoo xam ne mu ngi doxantu au niveau de la direction générale des élections au niveau du ministère de l'intérieur ñoom ñi nga xam ne ñoo war a saytu gëstu mbir yi lii nag gàcce la